yi nga xam ne nit ñi danañ ko ko jox loolu xam-xam moo koy moo koy définir mooy tax itam nit ki mën a moytandiku mboolem pettangal yi nga xam ne àddina dana ko tër seytaane di ko tër bànneex ak bakkan noonam yooyu nga xam ne ñoo ko wër kenn ku ci ne yor say pettangal di ko rëbbu bëgg mu daanu ci biir loolu xam-xam moo ko mën a musal gannaaw yàlla moo ko ci mën a musal ba mu xàmmee pettangal yooyu ba du tàbbi ci biir ndax xam-xam bu am njariñ dañuy wax ni koŋ la maanaam mbubb moo xam ne boo ko solee dara du agsi ci yow di ngànnaay loo xam ne itam mooy aar borom ba lenn lu mu sib wala lu mu bëggut a gis du agsi ci ci moom ci kattanu yàlla mu doon loo xam ne itam xeet yi ci lañuy ñuy sutaatee ci la ñuy rawantee xeet bu la ëpp xam-xam rek gën laa nekk ca kaw ña ca des féete ko suuf naka noonu itam xam-xam mooy li nga xam ne mooy jox dundub doomu aadama xayma bu nit ki bu bëggee ak dundam tekki dara euh, day fexe ba ab xam-xam nekk ci biir làmboo ko mooy tax li muy def lépp mën a am njariñ am fu mujj waaye bu fekkente ni euh, amut benn xam-xam bu boobaa la muy def li ci ëpp haba man mansuuran rek lay doon te loola yaakaar naa kenn ñaanu ko moo tax ngir sëg dund am xayma am valeur Eh, nit ki na jéem a lu bu baax a baax baax ba am xam-xam lu mu ci am rek nag bu mu ci bu mu ko bu ko xeeb ndax moom itam géej la goo xam ne yëmut fenn kon loo ci am rek eh, ngay sàkku lu ci dolliku waaye bul ci xeeb dara eh, mooy li nga xam ne itam mboolem charia yi fi mas a jaar te boo leen xoolee lépp di benn ñoo bokk lu ñuy digle di bokk lu ñuy tere charia yooyu yëpp soññee nañ ci xam-xam ak jàng ba nit ki mën a mën a gindiku borom xam si borom xam-xam itam ñooy wutaakonu yonent yi li yonent yi alayhimu salaam nekk woon ci kaw suuf muy jàngale ak gindee loolu boroom xam-xam yi euh, moo leen ñoo leen ciy wutu moom xam-xam itam mu amee xayma boo xam ne amee valeur woo xam ne mëni su ko natt mëni su ko tëkkale ak lenn du alal du juddu du daraja du lenn loo xam ne euh, mënees na ko tëkkale ak xayma bi nga xam ne xam-xam am na ko naka noonu itam moo jàppandal dunduk doomu aadama ba mboolem li nga xam ne moo jafe woon ci moom euh, daa di yomb li sori woon lépp mu fexe ba mu jige euh, li nëbb woon ba kenn mënu koo xam xam-xam wuññi ko li euh, nekkoon fi benn barab tasaaroo wut xam-xam ko tasaare ba nga xam ne léegi àddina lu xew rek benn minute ñëpp mën nañ ko yëgandoo moo jokkale itam mboolem ñi sorente woon xam-xama leen jokkale ba mel ne ñu ngi toog ci benn place ak yeneen ak yeneen i njariñ yoo xam ne kenn mënut a taxaw di di lim yëpp ci yi nga xam ne xam-xam lamboo na ko ay njariñ yoo xam ne kenn mënu koo mënu koo lim muy loo xam ne itam loo ko gën a baril euh, di géej goo xam ne loo ci gën a naan di gën a mar di gën a euh, bëgg ndolleen loo gën a xuus ca biir itam di ko gën a sopp di gën a bëgg a des ca biir loo bëgg a génn mukk moo loolu mooy mooy xam-xam loo gën a naan rek gën a mar xam-xam rek moo moo mel noonu euh, naka noonu itam mooy la ci yéeme mooy li ma waxoon léegi mooy amut fu mu yem amut fu yem benn xam-xam boo xam ne am na yemukaay euh, benn bu ci nekkee da nga cay jël euh, def ca la nga man rek bàyyi ndax genn fànn genn fànn ci xam-xam rek yaa xam goo ci jël gu mu mën a doon nit ki mën na caa jeexal ak dundam te du du ko du ko peek du ko peek xanaa kay da cay jël lam man bàyyi la ca des danañ ci joxe misaal alxuraan wax na ni balil insaanu ala nafsihi basira doomu aadama boppam rek doy na ko waar mën na cee xool waaye boo xooloon tey jëmmi doomu aadama rek cër bu ne am njàng la dangay gis ñoo xam ne bët dong lañ jàng moom lañ xam gis ñoo xam ne nopp dong lañ xam gis ñoo xam ne gimiñ dong ak i bëñ loolu lañ xam ba doomu aadama jeex kenn ku ci ne fànn gam ci jël mën na caa jeexal ak dundam te jamono yu ne yu bees di ci génn yoo xam ne da koy jàngiwaat gis ngeen bataay yi docteur day tëj cabinet am dem jàngiwaat ñaari at ba ñett yokkaat alliwoom ñëwaat te bu doxaatee tuuti jamono laajaat ko mu war ko defaat kon te kooku genn fànn dong lay jàng ci nit moo xam bëñ la wala bët la wala nopp la wala lu mu mën a doon genn fànn la ciy jàng kon bu jàngoon fànn yëpp kon naka lay mel kon mooy dundam gépp xalsat naa jeex te du ci jeexal genn far kon euh, loolu mooy xam-xam yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ci benn xadis ma ngay leeral mu ne aqrabu nnaasi min darajati nubuwa ahlul ilm wa ahlul jihaad sallallahu alayhi nee na ñi gën a jige yonent yi ci doomu aadama yi mooy borom xam-xam yi ñoo leen ci gën a jige ci daraja ndax buñ nee diis rek euh, boroom xam-xamay toog ñi ci topp mooy ahlul jihaad mooy ñi nga xam ne dañuy gàddu seen ngànnaay di xeex ci yoonu yàlla ngir tasaare diine ñooñu ñoo ci topp wala beneen jihaad bu mu mën a doon te nga di ko def ci yoonu yàlla rek ahlul jihaad ñëpp dugg nañ ci biir mooy façon jihaad boo mën a def rek nga xam ne yàlla tax nga di ko def mu ni borom xam-xam yi amma naas ala ma jaat bihi rusul borom yi ñooy tegtal doomu aadama yi li nga xam ne moom la yonente yi indi muy ay xam-xam yi ñuy jële ci seen borom ak yi njàngale loola borom xam-xam yi ñoo ko mën a tasaare ba nit ñëpp mën koo xam waaye nag amma ahlul jihaad fa jaahadu bi asyaafihim ala ma jahad bihi rusul li borom xam-xam yi jàngale baax na lool mooy li yonent indi woon waaye nag wa ahlul jihaad ñooy fexe ba nit ñi appliqué ko maanaam di ko jëfandikoo bañ ko teg ndek eh, ni ko ñuy waxee maanaam def dossier ba ci turwaale rek fàtte ko fa loolu ahlul jihaad ñooy tax ba du am mooy tax ba nit ñi li yàlla digle tere ko ñu di ko jëfandikoo ahlul jihaad ñoo mën loolu bu gannaaw bu ko borom xam-xam ya xamlee ba noppi sallallahu alayhi wa waxaat ba tey ci beneen xadis mu ni yashfau yowm alqiyaama al anbiya summa al ulama summa shuhada bis penc de yenent ñooy jëkk ràmm bu ñu ràmmoo ba noppi ku cey topp ñu ni borom xam-xam ya ñu ne ana siddiquuna yaak shuhada yaak saalixuuna ya ñu ni borom xam-xam ya ñooy jiitu ba noppi ñooñu soog a dikk kon xam ngeen ni daraja xam-xam daraja bu kawe kawe la mooy li ma waxoon léegi ni bu yenente ne diis rek borom xam-xamee toog kon xam-xam lu mat a lu mat a sonne la al imaamu shafii radiallahu anhu wax na ni waalam bi ann al ilma laysa yanaaluhu man hammuhu fi mataamin aw malbasi fajal li nafsika xadan fajal li nafsika minhu xadan waafiran waxjur lahu tiba ruqaadi wa abbisi fa laalla yowman in xadarta bi majlisin kunta raisa wa faxra daaka al majlisi imaamu shafii radiallahu anhu nee na xam-xam de na nga xam ne kenn du ko am koo xam ne euh, dafa def yitteem yépp muy euh, feesal biiram ak lu mu sol koo xam ne loolu rek mooy yitteem kooku na na taayee sonn xam ne du am xam-xam nee na nga ci wutal sa sa bopp ab cër bu am am solo ndax jataay boo toog rek yaay doon ndamul jataay booba ku ñu wax Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu wax na ni fa inna taalluma al ilmi lillahi xasana jàng xam-xam xam lu ko te yàlla tax euh, aw yiw la tuyaaba la waaye wa talabuhu ibada sàkku gi nga koy sàkku rek ak jaamu yàlla la jàng gi koy jàng tasbiix la mooy ak sàbbaal la ni nga xam ne nit ki mën naa yor kurusam di wax subhaanallah alhamdulilah allahu akbar ni mu amee tuyaaba noon la nekk ci xam-xam ba di ngunum ngunumi noonu la ame tuyaaba naka noonu albaxsu fii jihaad di ko gëstu di ca sonn xam-xam bu ñu la diwa ko xam nga laxas dem seeti ko jàngi ko gëstu googu nga koy gëstu moo gàddu sa jaasi di xeex ci yoon yàlla ñoo tolloo daraja wa taalimuhu liman laa yaalamu sadaqa waaye nag boo ko amee ba noppi nga xamal ka ku ko xamutoon loola nee na ab sarax la yëkkati ci sa poos joxe ni mu amee tuyaaba ak la la ci yàlla defal ci wiiw nee na noonu la xam le ab xam-xam di la joxe tuyaaba wa kullu ratbin wa yaabisin lahum yastaghfiruun mu ni euh, lépp lu wow wala lu tooy lu yàlla bind dañuy ñaanal ñi sàkku xam-xam di leen jéggalul euh, sunu borom jéggal leen te aar leen sallallahu alayhi wa sallam wax na ni euh, jaala allahu makaanat al ilmi ala min makaanat al aabid jaala allahu makaanat al aalim ala min makaanat al aabid sunu borom tabaaraka wa taala moo def darajey borom xam-xam moo ëpp daraje jaamukatub yàlla waaye jaamukatub yàlla boo xam ne la muy def tegu ko ci xam-xam borom xam-xam moo koy ëpp daraja moo koy gën a moo koy gën a kawe euh, waykat bu wax ni al ilmu yarfau baytan la imaada lahu wal jahlu yahdimu bayt al ilmi wa sharafi xam-xam day yëkkati néeg boo xam ne amutoon benn keno amutub juddu amut alal amut dara waaye nag am njàng dugg fa akub xam-xam dugg fa yëkkati néeg ba ba mu kawe euh, néeg yi nga xam ne ñu amoon juddu te amuñu xam-xam wala néeg yi nga xam ne ñoo amoon alal te amuñu xam-xam néeg boobu am xam day mujj féete leen kaw kon xam day yëkkati néeg bu amul xayma waaye ak réer itam noonu lay daanele néeg bi nga xam ne bu ñëpp nawoon la teg ko ci kaw bu ak ñëwee fees ko dell noonu la koy wàccee ba ci suuf mbokk yi xam ngeen xam-xam. ay fànn yu baree bari la waaye bokk na ci ci ëpp solo muy xam-xamub diine ak lépp loo xam ne mooy tax sa pas-pas dëgër ci sunu borom tabaaraka wa taala ak sa ngëm lépp lu koy dëgëral ak luy tax nga xam sa jaamu yàlla ak lu muy tëddee loola mooy xam-xam bi nga xam ne moo ëpp solo ci mboolem xeeti xam-xam yi sëriñ bi wax na ko ci euh, biir nañ ci ñëw incha allah naka noonu itam bu jàllee ilmul ijtimaa am na mooy xam xam-xamu social Eh, li nga xam ne ci ngay jànge société bi ba xam eh, naka la ñu ilmu nafs muy xam-xam boo xam ne moo lay jàngal psychologie doomu aadama boo xoolee doomu aadama yi rek xam kii ban façon la li muy wax wér naag wérut yooyu yëpp nga mën koo xam ci moom ci ab xool dong loolu ilmu nafs moo koy jàngale am na it ilmul kalaam muy xam-xam boo xam ne mboolem lu aju ci wax ci lu koy jubbanteeg lu koy neexal lu koy rafetal ca la dugg waaye ak xam-xamu médecine xam Euh, science nga xam ne moom mboolem yi ñu rek mën nga ko taxañ far dugal ci biir saako boobu muy science lépp ngi ci ci biir kon ab ab la bu gudd a gudd boo xam ne mënees na taxaw di ko di ko lim waaye yooyu yëpp doon yoo xam ne yu amal njariñ doomu aadama la ci diineem ak ci ci addunaam mu mën ko caa jariñoo cheikhul xadim radiallahu anhu wax na ni ci téeréem boobu ñu wax mu la yéen sudur mu ni wa baadu faalam anna gayra mastaxal fatan bihi ilmun wa diinullahi jal ba bayit yi jeex yow mbokk mi yow taalibe bi wala yow jullit bi na nga xam ne li gën ci lu nit di soxla woo euh, moom doomu aadama bi li gën ci li muy soxla woo mooy ab xam-xam boo ak diine yàlla ji mu xam ko ba mën a mucc ëllëg man faatahu haadaani fi duniyaahu mustaxilan bil maali an mawlaahu koo xam ne ñaar yi faat na la nga soxla woo alal ak àddina kese euh, fa maa lahu gadan siwa al adaabi wa niqmatullahi bil irtiyaabi kooku daal bu ëllëgee du fa fekk dara lu dul mbugalum yàlla akub sànjaam wala yaasu billahi taala te lii ma wax nag sikk newu ci sëriñ bay wax mu ni wa xayru hada wa xayrul ilmi ya ixwaani ilmun yuqarribu ila arrahmaani sëriñ bi nee na xam bi gën ci xam yi mooy bi lay tax a jige sa borom boobu moo ci gën beneen bu ci topp soog caa topp ka ilmi tawxidin maa tasawufi wal fiqi wa amalu bila tasawufi mu ni xam-xam ba ci topp nag ba ci gën mooy xam-xamub tawxid ragal yàlla xam ko Euh, jox ko wàccuwaayam boobu mooy bu ci gën bu jàllee lu mel ni xam-xamu tasawuf nga xam ne mooy ihsaan li nga xam nga fexe ba li nga koy jëfee yàlla dong tax dara rey àddina di ci dugg nee na loolu euh, mooy ba ca topp ci xam-xam bu am njariñ yeneen yeneen ya ca topp yépp nag soog caa topp xam-xam kon mooy li nga xam ne moo gën a cher ci lu doomu aadama di yilif ci ak dundam ndax xam-xam rek moo mën a may nit ci diir bu gàtt rek mu fàggul la yiwu bare bare bare moo xam tuyaaba la ju la yàllay bindal moo xam koomum àddina la moo xam jooy am léegi-léegi nga liggéey dara lu néew ñu fay la ca lu bare bare la ko waral mooy ab xam-xama koy def waaye doole defu ko la la ca topp mooy euh, euh, kon xam euh, mooy jox nit ki daraja boo xam ne itam mën na ko daal di am léegi ñëw fi barab ñu yëkkati ko teg ko ci kaw lu koy waral mooy eh, ab xam-xam boo xam ne amee na ko kon njariñ yu bari yooyu mu làmboo te gaaw ci lool ci jariñ ko doomu aadama bi moo tax mu ëpp xayma mboolem yeneen yi nga xam ne doomu aadama mën na koo fàggu ci ak dundam moo tax dañuy wax ni eh, bu nit ñi dee fàggu alal yow demal fàggu ji xam-xam lu ko waral mooy ñi am alal bala ñoo mën a jëriñoo seen alal jooju dañoo dajeek boroom xam-xam ba mu eh, wan leen yoon wa ñuy mën a jaar ba jëriñoo ca bu ko defee Euh, mën a jariñoo seen alal jooju moo tax bu nit ñi dee sàkku alal wutil xam-xam yow ndax ñi am alal bu ñëwee dañ la ko jox nga jariñ leen ci seen sa sa xam-xam boobu euh, kon boo xoolee rek tey ci réew yi nga xam ne mooy réew yi nga xam ne ñoo avancé euh, seen première matière bi ñuy sukkandiku mooy ab xam-xam du or du wurus du jamaa du beneen pétrole du dara waaye xam-xam rek ci la ñuy a sukkandiku ba Euh, yooyu yëpp fekk si leen mu mel ni sax réew yi ëpp xam-xam day mel ni boo xoolee tey ñoo gën a euh, wala néewle nañ lool ci mbellit yi nga xam ne mooy jóge ci biir suuf ñu ci bari am na ci ñoo xam ne amuñu ko waaye nag xam-xam moo leen koy xëccal ba fu mu mën a nekk rek mu mu mu fekk si leen nga joxe misaal itam ci réew yu réew yu ñàkk xam-xam yi nga xam ne yàlla dénk na leen euh, liy jóge ci biir suuf moo xam bu mu ci mën a doon muy or muy pétrole muy jamaa muy yeneen ak yeneen yi ñuy jëriñoo yëpp nga xam ne mëni si koo xam yëpp yooyu yëpp luñ ca mën a am te amut xam-xam ña yor xam-xam danañ ñëw jël ko ci ñoom nax leen yóbbu te duñu ca mën dara kon aw askan war nañoo fexe ba am xam bu baax a baax a baax mooy tax kenn du leen mën a utiliser xal la woo leen jëriñoo leen loola la koy waral mooy ab xam-xam buñ mën a am boo xoolee tey suñu réew yu néew doole yi nga xam ne Euh, li ñuy jëggaani ci bitim réew muy ay milliards milliards yoo xam ne dañ ko fi gàddoo di ko yët yeneen réew yoo xam ne ñoom ab xam-xam rek lañu ñu le ëpp ñu ay jumtukaay yi ñuy liggéey ndax lañ ko nañ seenum njàng ñu di leen yët xaalis bu dul jeex tax euh, imagineel tey milliards yooyu bu fekkonte ni tey xam-xam bi fi war a am am na fi ay nangami junni milliards yooyu yi génn di jëndi dara mu desaat ci biir réew mi kon tey jii naka la réew mi di war a mën a mel naka la situation doomu aadama yi war a ma a mel kon dana dana jag bu baax a baax a baax waaye mbokk yi bu ñu xoolee rek ci xam-xam ak dayoom euh, biir alquranul karim nga gis euh, sunu borom tabaaraka wa taala mi nga xam ne moo ne ci kaw lépp te xam lépp bi muy tàmbalee wàcce alquranul karim ci yonent bi sallallahu alayhi wax yu gi door ban baat la tàmbalee néew ko wutil alal néew ko wutil nit ñi néew ko dara lu weesu euh, jàngal jàng ndax xam na ne ci biir njàng mboolem yi mu ko war a defloo yëpp danay dugg ci biir njàng mi te bu njàng amee yooyu yëpp dana mën a sotti moo tax sunu borom tabaaraka wa baat baatub iqra moom la njëkk a wàcce ci alquran iqra bismi rabbika alladi xalaq jàngal ci turu borom tabaaraka mi nga xam ne moo la bind alladi allama bil qalam ma lam moo xamal doomu aadama lu lu mu xamutoon ñu gisaat itam yeneen aay yu baree bari ci biir alxuraan yoo xam ne euh, yépp la muy tegtale rek mooy dayab xam-xam ak valeur am bu mu am innama yaxsha llaha min ibadil ulama yàlla nee na ñiy ragal yàlla ci jaamam ñi euh, mooy ñi ko xam ndax ku xamut yàlla mënoo koo ragal yàlla bala nga ko mën a wattandiku da ngaa xam dara ci li nga xam ne moom la am kattanam gi ak sañ-sañam bi ak man-manam bi boo ci amee dara loo xam lu néew-néew boo kenn du la ko wax foog nga ragal ko waaye boo ci umpulee lépp nag ah kon eh, mënoo koo mënoo ko ragal mu mel ne liir boo xam ne day foyee jaan rek ndax xamut daangar ji ci jaan xamu ko waaye bu ko xamoon moytu ko mag ña ko xam moom dañu ko jigee waaye moom mi ko xamut moom mën na ko fooyee ndax dajee cee dara loolu mooy misaalum ki xam yàlla ak ki ko xamut kon moo tax sunu borom tabaraka taala wax ni ñi ko mën a ragal ci jaamam ñi mooy ñi ko ñi ko xam waaye itam qul hal yastawi alladina yaalamuun wallazina la yaalamuun sunu borom mooy laaj moo ni ndax ñi am xam-xam mën nañoo am ak ñi mën nañoo yem ak ñi xamul dara déedéet ñoo yem de ñi xam dara ak ñi xamul dara mënuñoo yem mënuñoo toll la wàccuwaay moo tax mu ne yarfa illaahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat ñi gëm yàlla ak ñi nga xam ne dañoo am xam-xam yàlla dana leen dana leen yëkkatil seeni daraja ba mu nekk ca kaw a kaw daraja yoo xam ne ñi amul xam-xam amuñu gëm ñoom duñu ko duñu ko mën a am alxuraan itam boo ko xoolee am na benn aaya bu am solo boo xam ne bu nu juumut day mel te giin waawu euh, benn yoon rek la ko sunu borom tabaaraka wa taala andi wa qul rabbi zidni ilman yow yonent bi waxal ni yàlla yàlla nag ma dolli xam-xam waxut yàlla nag ma dolli lenn de du aw fan du gudd fan du wér du alal du njaboot du dara waaye yàlla nag ma dolli xam-xam kon loolu itam tegtal la ci ni xam-xam daraja bu kawe kawe kawe la la amee cheikhul xadim radiallahu anhu waxaat ba tey nii wal taalaman bi ann ilman wa amal huma wasilata saadati ajal wal ilmu afdalu axi min al amal wa ussuhu fa faasa man lahu xasan eh, nee na na nga xam da ko feddli noonu tawkiid wal taalaman na nga xam bu baax a baax a baax ni xam-xam ak jëfe xam-xam yooyu yaar ñooy yoon yi nga xam ne ci la nit ki mën a jaar ba texe ñooy yaa ñooy wasilata saada yoon yi mën a jaar ba texe mooy ñaar yooyu mooy xam-xam ak jëfe ko mu wax ni nag xam-xam nag yow sama mbokk sama mbokkum julit xam-xam mooy euh, li gën moo ëpp solo jëf baax na lool waaye bu teguut ci xam-xam xam-xam baa ko gën moo tax mu ne wal ilmu afdalu axi min al amal wa moo ko gën waaye mooy fondement am fondement am jëf bi nga xam ne ci la jëf mën a taxaw ba du daanu lu mu baax baax lu mu rafet rafet bu taxawut ci fondement boobu day daanu waaye bu taxawee ci fondement bi ñuy wax xam-xam incha allahu taala du daanu ba ila yawmi diini ba yàlla di ko fay kon xam-xam moo gën jëfe moo gën jëf ju tegu wut ci xam-xam waaye tam mooy fondement bi nga xam ne jëf jooju bu ñëwee ci lay mën a mën a tegu waaye nag sëriñ bi nee ne lakinnama samaruhu kan nafi fi amalin bihi fakun ca sal jame xam-xam dafa mel ne garab goo xam ne meññet mi muy mën a mi ngi ci mën a jariñoo mooy jëfe ga lu xam-xam bi bari bari nag boo ci jëfewut moo garab bu meññit ñooy yem xëy na mën ngaa toog ci ker ga waaye jariñoo ko moom ak di ca watt di jariñoo loola moom doo ko man te loola nag ma nga mooy nga di ko jëfe ngay jëfe li nga xam loola mooy meññet mi nga xam ne moom la jur ji euh, la garab gi di jur xaliluhu bil ilmi aksaru sawaab min alkasiri maa jahlin lartiyab nee na jëf ju néew lool te tuuti waaye ñu teg ko ci xam-xam moo gën fuuf jëf ju baree bari rëy lool te ak képp lal ko akuk ñàkk xam kon xam am na am na solo lool lool mu ni nag naafiahu alladi eh, alfata taallama sëriñ bi nee na xam-xam bi eh, am njariñ nag mooy bi nga xam ne mooy xamal nit ki sunu borom tabaaraka wa taala na ma ko waxee woon ca béy ji jiitu léegi kon nee na xam-xam yëpp du ceegi ne xam-xam yëpp am njariñ de am na yoo xam ne dana lor borom am na yoo xam ne dana xëcc borom jëme ko ci alkande am na yoo xam ne dana xëcc borom jëme ko ci ak rëy ak yeneen ak yeneen yu baree bari boo demee ca masalikul jinaan da nga ko ci fekk leeral na fa mboolem xeeti xam-xam yam njëriñ waaye xeeti xam-xam yi nga xam ne day lore yëpp ak la muy waral yooyu yëpp sëriñ bi leeral ci biir waaye itam ne wax ni xam-xam nag euh, bu ko nit ki amee benn mu xëcc ko jëme ko ci lu koy jariñ wala mu xëcc ko jëme ko ci alkade te bi lay xëcc jëri ci jëme ci lu lay jëriñ nag mooy nga jiital xam-xamub diine ba xam fi ngay teg sa tànk ba noppi bu ko defee leneen loo ca tegati mën na laa xëcc la ci lu lay jariñ waaye boo jiitalee addina kese ah mën ngaa dem ba tàbb ci kàmb te doo ko te doo ko yëg inna alladi lam yaxsha rabbal alamin laysa bi aalimin walaw afna fu funun ki nga xam ne ragalut yàlla xamut yàlla joxo ko place am kooku de tuddut borom xam-xam tudd ko de doonte nag fànn yëpp jàng na ko de waaye taxut mu tudd borom xam-xam ndax li tax xam-xam di am njëriñ nekkut ci moom te loolu mooy ak ragal yàlla sayidna aliin karamallahu Euh, wax na ni moom itam ci luy dëgëral xam ak dooleem mu ni mal faxru illa li ahli ilmi innahumu ala alhuda liman istahda adillaau fa fus bi ilmin taish xayan bihi abadan annaasu mawta wa ahlul ilmi axyaau euh, Seydina Ali wax na ni euh, ndam daal akuk yëkkatiku kenn amu ko kudut ñi na xam ne xamxam ndax lu tax mooy ñi bëgg a jub ñoom ñoo leen di tegtal yoon yi nga xam ne ci ngay mën a jaar ba jub teg ci yoon moo tax ñoom ñoo amee ndam nee na na nga fexe ba xam-xam nekk ci yow nga dund dund gu texe dund gu neex te na nga xam ne itam nit ñëpp bu ñu faatoo wala nit ñëpp sax faatu nañ waaye ñeen ñooy dund mu ne borom xam-xam yi rek ñooy dund borom xam-xam yi rek ñooy dund waaye ñeemul xam-xam ñëpp moom seenug dund moo ko faatu moo yem ndax ñàkk ñàkk njëriñ an abi hurayrata radiallahu anhu jëlee nañ ci abi hurayra radiallahu anhu mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku sóobu aw yoon ngir sàkku xam yàlla dana la jàpp na la yoon wu la yóbbu yoonu sàkku xam boo ci nekkee yoon wi lay yóbbu àjjana da lay jige lool te day yomb ci yow waxaat moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni ida maata al insaanu inqataa amaluhu illa min salaas sallallahu alayhi wa nee na bu nit faatoo jëfam yëpp day dagg euh, fi ñu doon bind ay yiwam ak tiyaabaam dañ koy tëj ndax dara mënatu caa dolliku xanaa ñetti yëf rek moo ca mën a duggati mooy mu am sadaqa jaariya sarax buy daw boo xam ne euh, ma nga ko fa def doomu aadama yi di ko jariñoo mu di ko fekk fa mu nekk tuyaaba ja loola moom mën na koy mën naa dolliku ci ay jëfam waaye Euh, aw ilmin bi bihi wala xam-xam boo xam ne ñi ngi koy mi ngi ko fi bàyyi nit ñi di ci jariñu bind ay téere bàyyi fi wala nga am loo génne ci xam-xam loo xam ne lu amal njariñ doomu aadama yi la nga bàyyi leen ko ñu di ko jariñoo loola tuyaaba ji ba bis pénc ci da lay fekk fa nga fa nga nekk di yokku ci sa yiw ba ca topp mooy doom ju baax joo xam ne ak ñaanam lu dakk ci yow mukk fu mu toll mi ngi lay ñaanal ñaan googu di la fa fekk kon xam-xam am na solo lool mbokk yi moo tax ñu baax ñëpp di njëkkante kenn ku ci ne bind téere yoo xam ne danga ko fi bàyyi doomu aadama yi di ko jariñoo mu mel ne yaa ngi ci kaw suuf ba léegi di jëf ndax jariñoo googu ñu koy jariñoo tuyaaba je lu mu bari bari euh, da lay fekk fa nga nekk ba bis ci dootu dootu daggati kon am na solo lool lool lool lool sallallahu wax ni sàkku xam-xam farata la ci jullit bu ne kii sàkku xam-xam de euh, lépp da koy jéggalul yàlla ba ci jën yi ci biir géej ga sax dañ lay ñaanal sunu borom tabaaraka wa taala ak njëggal kon sàkku xam-xam am na solo lool waxaat ni kii sàkku xam-xam mooy ken kenëb lislaam mooy li nga xam ne mooy téye diine ndax diine xam ngeen ni bu fi xam-xam nekkutoon kon ba naga ni diine jóge na fi bu yàgg ndax diine moom ab xam-xam la ak lu ñuy jàng di xam nañ koy defee ak nañ koy bàyyee xam-xam boobu nag boo amutoon ñu koy sàkku di ko téye bu ñooñu jeexee ñeneen sàkkuwaat ko bu loolu amutoon kon naga ni diine raaf na bu yàgg yàgg yàgg yàgg waaye ñi koy sàkku di ko jàng téye ko ñeneen ñëw ñu jox leen ko ñeneen ñëw ñu jox leen ko ñooña ñoo fi bàyyi diine moo tax sallallahu alayhi wasallam ni euh, kii sàkku xam-xam wala mooy kenëb diine bi nga xam ne moo ko téye borom xam-xam wala borom xam-xam boo xam ne ñi ngay jariñoo xam-xamam ña ngi koy jariñoo nit ñaa ngi koy jariñu euh, moo gën euh, junni ñuy jaamu yàlla ñoo xam ne ci seen bopp rek lañ yem jaamu yàlla goo xam ne jàllut ci kenn tuyaaba ji ci yow dong lay yem ñooñu koy wax dëgg yàlla lu ñu bari bari wax dëgg yàlla ci seen bopp dong la yem mi nga ne kiy liggéey def ci poosam rek la muy liggéey lu mu bari bari moom jëriñu nit ñi moom lay jëriñ moo tax jaamu yàlla gi lu mu bari bari yow ci sa rek lay dem waaye xam-xam bi nag boo ko dee tasaare muy dem ci nit ñi ah moo tax nag nga amal njariñ nit ñi euh, kon kooku la société bi gën a gën a soxla moo tax jàngkat yi ak jàngalekat yi ñu mat a dooleel lañ ñu mat a taxaw lañ xam ne askan yépp ñoo leen yor ñooy tax ñu mën a jëm kanam mbokk yi boo xoolee xam-xam ba léegi ak daraja bi mu amee ñu jàngat benn rek muy bi ñu jógee ci xaswatu badrinil kubra xare badar bi ñu ci jógee ñu jàpp ay prisonniers ñoo xam ne jullit ñi ñoo leen jàpp indi leen euh, ñu digle ni sallallahu alayhi wasallam diisoo ak ñi mu war a diisool la mujj juboo mooy ñi nga xam ne am nañ alal ju ñu jote seen bopp nañu jot seen bopp kenn ku ci ne na am lu mu joxe ñu bàyyi ko mu dem yoonam ñi nga xam ne amuñu ko nag amuñu loolu te mën a jàng ñooñu nañ jël doomi jullit ñi jox leen ñu jàngal leen bind ñu jàngal leen bind ni ñuy binde waxu ñu jàngal leen alxuraan ndax xamaguñu alxuraan ndax ba léegi ay yéefar lañu woon kon bind lañ leen di jàngal ak nan lañu koy defee bu ko defee ku ci jàngal ab xale ba mën a bind mooy sax njot ñu bàyyi la nga dem kon xam ngeen ni ah, mbokk yi xam-xam am na solo lool lool lool lu mat a ah, lu mat a sonne la naka noonu bokk na ci liy tegtale dayab xam-xam mooy ah, mboolem yonent yàlla mas a yónni bu ñu ñëwee defuñu lenn lu weesu jàngal nit ji ak xamal leen kon ab xam-xam la ñu indi boo xam ne min indi rabbina ma nga jóge ci sunu borom ko wa laa ñu indi ko euh, di di ko jàngal nit ñi ngir ñu mën a xam fu ñuy jaar ba mën a jaamu seen borom ko wa laa mën a mucc ëllëg